kooku mooy Cheikh Bara Ndiaye ak Coro Mandela ñooñu ñoo wax ca vidéo yi waaye ëpp nañ ko nag bari nañu lool Assane noo gisee démb ndajem chroniqueur yi daje woon ca euh, euh, barab di wax ak sénégalais wax nañ ci yu bari joxe nañ ay dat nag ñu war a euh, dajaloo dem nañ sa bagaay defar ay affiche daal yoo xam ni tudd nañ barab yu baree bari sax am ñu ne jërul dajaloo fu waay nekk rek na nga fa commencé ginnaaw ba nag ci réew mi ñu toll foo xam ne ñi ngi naan toog waxtaan waaye daal ñoom dafa mel ni dégguñu waxtaan ak amnistie waa xanaa rafetlu ko rek te di leen nuyu bu baax bala ma leen nuyu sax ma njëkk nii Pa Assane borom sarab lii maa ngi koy siyaar tey def loolu rek nga koy ràññee. waaw sarab lii sarab lii fi nii moom daanaka lépp lekk sarab lii. <laughs> ah jël loolu sax. Ah, ah sarab lii kay xam nga ni. <laughs> yow lu sarab lii. <laughs> sarab la. yow tey bi ñu waxee kii bi ti waa ñi. kii ñu leen sarab lii. xarab la. <laughs> Assane day pot aju yoon ñu koy nuyu bu baax Paa Assane ndeysaan tey daf maa gis ni ma yow ma maa jox ndékki ndékkeem la jël jox ma. ah tey moo ma wax wax mu ne ma yow maa la war di jox ndékki. sama toomaa la ñu ngi koy ñaanal jàmm bu baax nit ku baax la. Mm-hmm. Sénégal yi ah. bëgg lool ñu ngi koy profité di nuyu lébu yëpp ndax waxam neex na. voilà ñi respecté ñi it euh, muy maam Biram Wàcc initiative bi rafet na maam Biram Wàcc Coro Mandela Salma Ibrahima Fall ak sëñ Saliou. Mm-hmm. ñoom ñu doon ay chroniqueur daal di bokk gis-gis daal ni nañu woote woote bi nag ñëpp lañ si woo ñëpp wuy si leen si gis naa si ay ñoom Diop Taïf ak Guy Marius Sagna ak ñëpp ñëw ak Cheikh Bara Ndiaye ñu waxtaan waaye eh, gis nga seen ànd bi son bu li leen tax a jóg liñ doon def moo ëpp sens lii maanaam ñoom ñoom chroniqueur yi daje niñ doon xeexe moo ëpp sens nii ndax niñ doon xeexe danañ ko xeex si sutura danañ ko xeex xeex si si far force te dana metti président Macky Sall te du si man dara mooy toog si sa émission di dénoncer li muy def toog si sa émission di ko xamal ne ko da ngay organiser élection ba léegi ko non lii li ñu wax dañu du def mooy lan nee nañu àjjuma bii di ñëw dañuy dem bërëb sàngam xeex ak àllarba ak àllarba nee na danañ xeex ba mu wàcc la amoon Mali te xam nga ni ñii duñu wàcc la xeex ah, la amoon Mali lañ wax la amoon Mali kii nii man maa maa ko dégg <laughs> ah, ah, ah kay man maa ko dégg sooy man du ma sos pourtant man doon naa déglu mais déggu ma ko. man maa dégg wax ci wax na ko coro comme la amoon Mali. ah waaw. non. kon nag ginnaaw loolu wax nañ ko te duñ ko def ndax xam nga lu tax duñ ko def nee nañu xam nga Cheikh Bara nee na nañu wàcc ci tëli bi te bu doon jihaat ku leen teree bañal ak nangam nangam. Mhm. te mi ngi ni coro coro moom yeboo ñuy visité ab saagam mook salma ndax mhm. fu ñu nekk ñu ngi yor buum. ci seen i saag dañuy bëgg na dem ensemble takk seen bopp. loolu lañ bëggoon waaw. Cheikh Baara lañ ko woo ni ko ni ko kii nu mu tuddati coro ma ngay takki bu moom mu woo ko jotu ko muy fexe ba jot ko ni ko coro dëppal coro bañ mu di ko nax di ko nax ba coro dëpp coro bu moom la doon takki ensemble dëpp mooy buum si baatam takk ko ensemble maanaam dafa gën pendre boppam waaam eh, faatu doon yeew boppam ensemble rek waaw kon mais Cheikh Baara ko ñaan ba mu dëpp ni ko xam naa comme li Cheikh Bamba Dieye def leeral waaw comme li Cheikh Bamba Dieye def xam na la wax waaye Cheikh Baara moo ne ko sa xeex bii ngay xeex boo demee def noonu ñu jàpp la dugal la si kase bi du am njëriñ am na beneen xeex boo mën a xeex toggal si sa émission ngay wax ñuy dégg xam loolu la ko wax. Mhm. ba pare nee na dinañ wàcc xeex ba pare nee na toggal si sa émission di wax ñuy dégg kon ñii li ñu wax nit ñi ak li ñu war a def du benn duñu wàcc si tëli bi duñu xeex. ñoom ñii ñoom ñii ñëpp. duñu wàcc duñu wàcc si tëli bi duñu xeex man Assane Mesere maa la ko wax. doo leen gis ñu yor aw xeer di xeex. ñoom ñii waaw te nee nañu dañu wàcc tëli bi xeex te ku leen tere bañ leen non ñii ñemewuñu wax ni ñu wàcc man man sooy bu du ma waxantu man su ma fa nekkoon lu ma la wax dinaa ko def. yow mi barke alxuraan su ma leen àjjuma nañ wàcc xeex man maa laxasaay ñii duñ bousee ñii duñ bousee mètre. moo tax ma xam ne bu ñu waxtaanoon si kuréel gi duñ ko taxawee nii maam danaa ne yéen ñiy def émission da ay kuréel yéen ñëpp seen seen seen waxtaan benn la war a doon mooy li Assane Mesri di wax ni nañu organiser élection yi le 25 février. yéen ñëpp wax. émission yëpp ñu koy wax émission yëpp ñu koy wax muy riir si émission. pourtant ñoo ngi ko wax ñun la noo yow fi nga toll si réew mi waroo def yii mm-hmm. waaw ndax coro ba mu koy defi Cheikh Baara wax ba mu dëpp te Cheikh Baara nee ku ñu fi ñaan bañal kon ñoom ñi nga gisoon ci jotaay bi ñoom ñi nga gisoon doo leen gis ñu wàcc si tëri bi yori xeer di xeex te noonu la war a def jiitu ndax ñoom ñoo woote mm-hmm. ajjuma bii nag ginnaaw kenn wootewu ko ñépp ko bokk fépp lay doon mm-hmm. nañ xaar ba ajjuma ñu xool mais daal initiative bi la boo xamante ni bu fekkee nii ñu ko waxee ne nañ koy defee nañ ci góorgóorlu bu baax ba am ci ndam bu ko defee beneen président bi ñëwit bu ñëwee bu ñëwee na faxas lii lépp la lii lépp am président bi sil bu yore parti sax na tas parti ba bu dee oh Ousmane Sonko ku mën a doon bu dee parti Pastef la Ousmane Sonko bu ñëwee na démissionné si parti Pastef démissionné si kuréel yi effacé kuréel yëpp ndax Sénégal lépp ay kuréel la fi mu toll nii mm-hmm. bu effacé kuréel yëpp mu taxaw sël menn moom président mu waxtaan ak suñu constitution bi taxawal gouvernement bu bees amul kii xam naa ko amul kii xam ma ko ku ku jàng man nañ ko fal amul kii bokk na si procès amul kii daana xeex xam nga ay chroniqueurs yu dajaloo seen daje dafay gën a yombal ràbb li ñuy ràbb man loolu laa ci déggee léegi ñoom bu ñu dajee dañuy non ni ay chroniqueur dajaloo de ay chroniqueur la ay nit yu dajaloo la mais ay chroniqueur Diop Taïf chroniqueur la Diop Taïf lu mu doon activiste la lépp la ay activiste la Cheikh Bara lu ab sëriñ la Mame Biram Mame Biram journaliste la Coro Mandela waaw Coro de xam naa ne mën naa am ak kii la moom chroniqueur la waaw Euh, Serigne Saliou euh, Serigne Saliou. journaliste la groupe ak moo jiite Guy Marius Sagna activiste la. ndaw sa ba Bousso kii Bousso. Bousso moom dafa jiite ak kuréel am na kuréelu boppam gu mu jiite dem ànd jeeg jomaay président. waaye dañuy chronique rek. waaw non chronique wut may mun a Bousso chronique kon dañ ni dañ am ñeenti chroniqueurs yu am gis-gisu dajale ay nit taxawal benn kuréel. kuréel ba nag mooy xeex chaque jour si télé bi. raak takk seen i ba mu gàtt ñu sol seen i dàll waaw jigéen ñi séer yu toll si oom la ñu takk ñoom coramaan di laa nee na seen sër yi na toll si oom yi waaw ah, ñu takk seen i dàll loolu ñoo ko wax loolu du benn wàcc si tëli bi ñu wàcc tëli hélas <laughs> coro ah, nee na sër yu gàtt duguj duguj déet waxul ah, ah xeex déet nu ñuy xeex mais sër yu gàtt duguj mooy lan gàtt duguj mais mais mais tubay euh, jiin mën na non jiin jiin kay jigéen kon duñu la xàmmee góor ñi di te dañoo bëgg ñoom ñu doon ay jigéen xam ne jigéen ñi participer nañ si lii nañ a xaar ba àgg ci incha allah ci la ma la wax Serigne man daal lu mu ko waxee baax na xam nga wax moom da ngay wax rek ñu ngi koy dégg ñu dégg ko noonu duñ si yokk duñ si wàññi joxe hélas. alaaji waaw front bi nga xam ne dafa taxaw anti report élection yi ci biir réew mi wax nañu fay wax yu bari. Mm-hmm. defe naa ñoom la ñuy wax seen jotaay ñun ñëpp bu ñu toogee fi moom la ñuy wax mooy président na organiser élection yi. Mm-hmm. ci biir loolu xaw nañoo woote daal ab rassemblement dafa mel ni ajjuma daal bu fekkee ak dellu ginnaaw amul ci président ajjuma mm-hmm. dañoo bëgg àddina bi yëpp daje ca place de la nation ñu euh, daal di jëmmal suñu naqar woowu mm-hmm. waa xam nga am na système boo xam ne moom système mu kii la ko xam nga boo seetee dañ lay wax ne la julli eet bu ñu jullee ba pare mbedd mi nga jaaroon jaaraat leen beneen mbedd mu nekkoon politique boo xam ne bi lislaam doon na ko def mm-hmm. pour wane doole l'islam pour xuppaaye ñi nga xamante ni ñooy yéefar yi n'est-ce mm-hmm. tey jii sumay bu bu jaaree ci koñ bi moo ko Assane buy dëpp jaar beneen koñ waa koñ boobu nga xamante ni ki gisoon gisuñu ko woon daal ne mm-hmm. bokkut ak ñi fi jaaroon mbir mi nekk kii boo xam ne kii bu yéeme la. Mm-hmm. bon front yi euh, jamono jiñ toll nii bari na waaye bari gi euh, xuppe la. comme ñu ne front bi judd na front bi judd na front bi judd na front bi judd na front yi judd na front bi judd na mais front yëpp daanaka boo seetee dañuy linké ay benn front la rek boo xam ne mën mais mën na tas def multiple front léegi nag ci tour eh, ñi nga xamante ni bi ñi ngi eh, def loolu hmm. maanaam communication tubaab yi nga xamante ni bi ñu ngi loolu hmm. ñu ngi naan front kii ak front lii front lii prix de nangami organisation daje nañ loolu day peser ci li nga xamante ni bi moom mooy balance bi comprendre nga <laughs> euh, parce que comme que xeex euh, dafa toll foo xam ni euh, jàpp naa ni jamono ji ñu toll nii moom sax li nga xam ni moom la aar sunu élection wax <laughs> forme boobu mooy bi gën ci jamono bi toll ni muy marche silencieux bi nga xam ni moom la ñu woote <laughs> nga xam ni nañ leen dajaloo doon benn force wan ko àddina nga xam ni demandé woon nañ benn itinéraire ba préfet ne boobu baaxul ñu tànnaat beneen daal di joxe rendez-vous jeudi di ko astafurla de vendredi suba ah. mhm. lañ waat seen rendez-vous bon def naa dinañ joxe ah, ah. ma defe naa bon comme que bii yaakaar naa dina ko autoriser parce que comme que moo leen waxoon ne leen bee ngeen tànn baaxul mhm. ñu discuter waat ci beneen itinéraire kon je pense que ni bii war na ko autoriser mhm. euh, parce que jamono jiñ toll nii da ngay xool xeex kan la gën a arranger parce que man jàpp naa ni jamono jiñ toll nii tembe xeex ki mu gën a arrangé mooy président Macky Sall ba tey bu ñu fàtte ni euh, loolu kii la fi fi mu toll nii li mu yanu nii rek doy na ko waaw parce que nit ñi ñi ngi xeex ak moom ci beneen façon boo xamante ni bi bokkut ak di génne ay xeer ak di delluwaat ci kii boobu parce que loolu ku koy def dafa mel ni rek yaa ngi koy bëgg a joxaat ali bi mu mën fee toog pour jéem a régler problème mhm. parce dañ naan problème am na fi gars yi fi ñu tolloon ne xeexuñu nañu organiser marche yoo xamante ni bi tey dénoncer yenn yi ginnaaw léegi Sénégal wéetatu ci ñi nga xam ne ñu ngi doon xeex wéetatuñ ci àddina mhm. bi yëpp dugg nañ ci parce que jéggi na paa boo xamante ni bi tey moo ko dugal bul ko may loxo fu mu ah. jafandu parce que am na loo xam ne boo ko ko mayee boo ko ko kiiwee rek day am fu mu jafanduwaat waaw pour jéem a ne day regle dëkk beeg day def lii te fekk ne dara déréglé wu fi li ñu ko organiser loo mooy mu organiser ay élection mhm. fi mu toll nii dafa am fu xeex fu mbir di toll. Mhm. xel ngay xeexe mais doo mhm. xeexee. waaw parce que nit ko. organiser élection ba pare ni ko dañuy xeex élection ba noppi. ko dañuy xeex tàmbalee xeex. fii la ñuy xëy ñoom ci seen jëm bopp mën nañoo lakk bulletin yi sax ne bulletin yi tàmb gaa yi taal nañ ko. yooyu yëpp ay prétexte la yoo xamante ni. mën nañ ko am ci biir xeex bi ngay xam ni yeneen xeex mën nañoo jël ay booy ñu ne fii lañ defoon bulletin yi gis nga niñ ko taalee. léegi il faut il faut di temps pour defaraat lii ak defaat lii wala ñu daal di dem lakk fi yee nga xam ni fa la ñu war a def ay biir wóorut. Mhm. jamono jiñ toll nii élection lañ ko wax mu kii moom moo jéggi saako yi. àddina mhm. ne du sénégalais yi kese ñoo ko wax ne ko dellusiwaatal. mais àddina mhm. ñoo ko wax ne ko defal élection yi ci date bi nga xam ne moom nga kii woon donc même bu koy jàppaat mënta sori. du dëgg. waaw ak lépp lu mën a am na nga xam ni fi mu toll nii marqué nga ay jéego. waaw tempérament yi na wàcc. d'accord comprendre nga nit ñi gën a demee ay xel. Mm. te bañ a demee xët-xët. moom laa la doon expliquer la démb ne la xët-xët dafa am fu mu baax. Mm. mais dafa am foo xam ne boo fa tollee nag. Mm. mbir mi da ngeen ko war a régler ci silence moo tax gars yi li ñu woote na ne marche silencieux fi mu toll noonu foofu la yëf yi toll yëf yi tolloo tut ci tey nga def lii yeggagu wa mën nga mën nga yeggaat ci situation boobu mais yàlla bu ñu fa yegg parce que mm-hmm. defe naa ne président Macky Sall fekk mi ngi teg jéego yu normal mm-hmm. bu tegee jéego yu normal foofu mën nañ fa bañ dugg kon fi mu toll nii li ñu amagum nii mm-hmm. nañ ko préserver xool nag bu baax a baax na la ñuy demee ci élection nu ñuy demee ci élection ci nu mu gën a gaawee comprendre nga loolu mooy li nga xam ne moom la ñu war a jël daal ne date bi nañ maintenir ne la vingt cinq bi bu ko defee waa ji moom c'est sûr que ni moom le 25 bi moom détruire na ko ba pare. mais it vingt cinq bi loolu message la ci booy discuter ki ngay wax ne vingt cinq mooy que ni euh, weer wa ca topp na ñëw. parce que comme que loolu comprendre kon loolu jéego la boo xamante ni bi moom ngay mm-hmm. teg mm-hmm. mais fi mu toll nii moom wax dëgg fa yàlla euh, boo xeexee son yi waa ji da ciy jafandu xeex moom baaxul. ok bu ko kenn may prétexte. macha allah man de Tëngéej laay déparé. Euh, hmm? mooy man de Tëngéej laay déparé ngi noonu Pierre ah, xam nga sànq maa ngi la koy junj sax moo doon mu koy waxaat ci nopp yi mais foogoon naa ne da ko déglu moo taxoon ma wax na tudd ma tur yi. Hmm? ci RFI la euh, Pierre Atepa Goudiaby wax wax jooju maanaam dem na ba tudd fin mai. Hmm. maanaam daal junj nañu ay date yoo xam ni mën nañ ba a àgg 15 décembre bi xam nga wax nga ko démb. waaw maanaam bu ñu nekkoon le 25 bii. waaw ñu bëri xam nañ ni moom mënatul nekk. waaw waaw mu bañ a sori waaw bu dul mayit waaw nga defaat un mois wala deux mois. def élection nga loolu. Ah. waaw loolu yëpp mën na ne. mais loolu yëpp nag nañu fexe tamit ba garder calme bi nga xam ni. moom lañ am nii parce que am na loo xamante ni boo ko garder wut. yaa may waaj li war a am. wala yow yaa koy puusaat. donc nañ garder calme bi nii fexe dem élection quoi. Assane ah kay. calme bi taxawal <laughs> kuréel pour ñu dee dee calme nga. déedéet déedéet non calme gi pour dee calme la. kuréel gi mm. moom man Tëngéej laay déparé. ànd ak Cheikh Baara Assane dimbali ñoo kuréel gi Tëngéej la ñuy déparé ànd ak Cheikh Baara ak ñoom Baye Mbaye. léegi lu tax nga bëgg leen a forcer xeex bi. yow bañ wootee waxtaan demoo. nga ngay bëgg ni tey di ngeen xeex. Assane kuréel gee ko woote. non non waa léegi waa léegi yow toogal leen seetaan rek. kuréel gee ko woote kenn xeexu fi. Ah, baax na. yaa ngi dégg day Sénégalais yi dañuy dem élection yaa ngi dégg fi mu toll nii benn mbir a fi am manifestation bi nga xamante ni moom la gars yi woote ne manifestation boo xamante ni bii bu pacifique la marche silencieuse lañ ko tuddee du dëgg. Mm-hmm. nit ñi mën a dem dem représenter sénégalais yëpp. comprendre ñu wane seen. naqar waa ji nga xam ne daanaka mi ngi ci virage ci lépp nekk ci kan nga bëgg ko may prétexte. bul ko bul may benn prétexte. ma ne. waaw digloo démb dégluwoo kuréel kuréel. waaw man dama ni déglu naa leen. Ah, mais dama ni. keneen def na waa ji waa ji mi ngi am ay xar ma wax la waa ji waa ji jeexal na. Mhm. jeexal na yow xam nga ni jeexal na. nañ ko ba mu génn. <laughs> do déedéet bul ba boo mën ko baax mu ne voilà comme sama na nag léegi kii médical. <laughs> xam nga dama seetaan alaaji dem benn théâtre boo xam ne. wax léegi sama xel dem ci yàlla ko yàlla yërëm sa léegi faatu na te am nag njaboot. mooy bañ ko joxee soxnaam muy laytoo da laytoo ba ni sama photo sëriñ yi dinaa ne ci néeg bi di fi def nanga ah, ah, ah. dernière carte bi mu joué daa ñëw bay ñëw ci mag ñi ne tey moom laa jël sama soxna mu daw ba jub leen daal daan daan ni déggu leen teel ñu ne amali ràbb na <laughs> lu ci waay man prétexte lu ci waay man kon yow bëgguñu bu max ko mu génn kan non non non parce que jeexal na Assane non non wër na yàlla jeexal na ni moom Assane billaahi wallaahi jeexal na dis discours yi moom jeexal na tàkk na gën a xele quoi. waaw jeexal na tàkk looy tàkk na tegu cim xel te bañ a tegu ci kon sa bi léegi comme kii nga gars yi léegi sa vidéo démb bi kon mënees na ko privé. vidéo ban hmm? ah man man man man dama doon seetaan rek wax li ma seetaane seetaan nag man am na ko ma dégg mu ne li nga def jaadul parce que am nga xam ne 19000 vues te ñoom ña fa demoon amuñu ko. ok ay 25 même 25000 kay wala 24000 laa jëm. mën na koo ëpp sax. waaw ah, mën na koo ëpp. waaw ah. d'accord maa ngi leen di siyaar daal bu baax. di sa kuréel gi nu mu tudd yow. xam nga ko wax ko. ah man ak Moodu. Moodu kuréel gi nu mu tudd. ah waaye Moodu noonu la ko wax. ah Moodu. intègre ah. te moom dong la kat. ah association de chroniqueur intègre waaw boobu léegi euh, association bi nag leen na ko tax a jóg mooy ñun chroniqueur yi ajoog man ah, di jàppale jomaay ak sëriñ bu eh? bu jomaay faloo RTS la ñuy yóbbu ñoo koy jiite ñun chroniqueur yi bu sëriñ bu faloo mm. ñun ñun chroniqueur yi ñu ko jiit na ko leer ni taxawal nañ kuréel goo xam koy xeexle bu mu falu falu mais yow yow ñaar ñi ngay wax ñu bokkuñu ay ay parti waaw ku kenn il faut kenn falu si ah, yow kon nag ñaar ñooñu ngay jàppale dama kenn falu si ñoom ñaar fekkee bu ba falu RTS la jox ma doon directeur bi ndax maa jiite kuréel gi ah. bu dee jomaaya falu RTS dama jox ma doon directeur bi hmm. voilà ñi si des ñuy xoolal leen yeneen poste looloo tax ma taxawal kuréel gi nag ndax damaa bëgg ëllëg ah. taxawu ma la kuréel gi nii nag pour non Assane da ngay Assane da ngay diaboliser kan sama kuréel man laa waxatul ak boppam dégg nga li waa nee na dafa taxawal kuréel gii pour sama kuréel man mm-hmm. dama ko taxaw pour poste ëllëg xeex kuréel yii ba sama kuréel man pour poste tax ma yow Assane wuy xam naa ni ngay waxee mm-hmm. taxawal sama sama kuréel alaas dégg nga dégg ko wala dégg ko naa ko day pour mu jox ma RTS yoo xam ne soxla ma RTS ko tax soxla ma RTS tamay taxawal sama kuréel gi bu yàgg ba tey maa njëkk a taxawal ñëpp poste tax ma taxawal te ñu ma àndal danañ mos. looy tàggoo comme fekkee ma si boole. looy tàggoo mes rek. waaw li may tàggoo daal mooy sant ñëpp gërëm ñëpp.